jërëjëf mbokki Leral TV jërëjëf yéen ñu taamu émission bu mag boobu fàqat tey ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax am contentement ñëw dugg ci benn dëkk boo xam si ni ku ne ràññee nañ ko bari na ay kilifa yu fi nekk wax dëgg yàlla ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax te émission Faaxat ñëw na kayaar ñëw si école de ligue Kayar boo xam si ni fekk nañ fi ay ndaanaan yu bari waaye fekk fi ndaanaan boo xam si ni kenn dootu ko présenté te xale boo xam ne def na 22 combats def 3 défaites léegi lépp loo xam si ni def na vingt 22 combats def 3 défaites te xale boo xam si ni am na tamit benn sans verdict te xale boo xam la. mbokk yi ndaanaan laa leen di tegal noonu di xale boo xam ne bu bëree mu neex waaye tubaarkàlla bu ko bu ko waa kayaar daree mu neex di xale boo xam ne ñoo mënoo tuddu làmb wala nga dugg biir kayaar te doo ko laaj ci muy jam ceer yi dañ koy nuyu dañ koy nuyu mbokki leeral TV mbokki émission bu mag boobu fàqat nañu bàyyi nuyu jam ceer yi bu ko defee mu nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy seetaan à travers leeral TV jam ceer nuyu nañu la. waaw maa ngi lay fay. di santaat Serigne Touba rek. Mm. santaat Serigne Touba bu wér a bu baax. di nuyu waatunu jëndal bi yëpp dañoo bëgg si nga jàkkaarloog si caméra di nuyu waa suñu jëndal bi yëpp. Mm-hmm. di nuyu waa Touba bu baax a mm-hmm. di nuy waa Kajoor. Mm-hmm. su ma dëkk. sa kab bi waaw di nuy waa Kajoor. waa suñu jëndal bi yëpp. di nuyu sama staff bi yëpp. li ko dalee ci grand Assane bi. ba suuf maa ngi nuyu bi yëpp yëpp bàyyi ma kenn. sama kot si Baye Marital Baye Sarr ak sama waa écrit. ñi nga xamante ne ay tuut tànk lan te depuis ba mu débuté ba tey ñoom laay àndal. muy guddi muy bëccëg. si lu ma ne ñu necc su may combat ñu yërëm ndam lool muy ikri kaar képp ku fi nekk di fi entraîné rek ak no ma toll jam teer mu ngi lay bu baax a baax jërëjëf di nuy sama doom ndey jam kii libidoor mm. sama rakk la sama lépp la mm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax képp ku yeewoo Kayar rek maa lay bëggee bu wér. Mm. wér a wér wér. Mm. Ah, ñuy nuyu nuy nuyu mbokki Kayar yëpp bàyyiwuñ kenn góor jigéen mag ak ndaw waaye tamit di di di nuyu di nuyu fi nga xam si ni fa lañ jógee mooy fi nga xam si ni waa West gi waaye tamit jëm cër yi balaa ñoo def dara danga am 22 combats komba nga nekk xale teel a bëre nga def vingt 22 combats 3 défaites nga am benn 120 tey ji noo dundee noo dundee combats yooyu nga am foofu yëpp ak noo dundee bëre bi. waaw comme wax nga dama nekk xale. Mm. teel a bëri def may ànd ay tout tànk mhm. dama daan bëri saison bi ñetti combat wala ñaar cees samay combat lu ci cees la lu ci ëpp soo Thiès la ak Dakar bëri naa bëri naa Dakar bëri naa cees bëri naa Mbour mhm. bëri naa Kayar gi sama dëkk mhm. damaa teel a bëri teel a ràññee amul lu may ragal ci làmb day am ay nag te tey fi ma taxaw mënu mu fee da nga am ay victoire loolu ba pare. fi nga taxaw mënu fee jóg waaw te bëri naa samay moroom lu tax fi nga taxaw mënoo fee jóg. loolu moom dama jàpp ne lamb lamb lamb lamb moo moo féete benn côté. lamb moo féete benn côté. parce que tey. yaakaar naa. ku daan boy ngaay bi mu toll cee guddeem. teel mi daan léppul André nga xam ne teglante raafu si ñaari yoon. Mm-hmm. jël ko daan béykat si yoon xam def na si lamb lu nekk. Mm-hmm. daan Baara Ndiaye jël na Karaaf Moussa Gueye. Mhm. ma jox mhm. daan ay ñoom Mbaye Gueye Senior. Mhm. ñëw nga ci ay ñoom Vandam bi rek Onesi. parce que tegal na huit victoire xaw ma neuf victoire. te mu ko daan. yaa may dégg. jóge fa daan Jalle dañu ne woon booy moo ci të. waaw mais doo doo boobu sa digganteeg Jadli boobu muy nekk combat bi nga mujj. combat bu mujj sa combat. mu nekk combat boo xam ne gis nañ mobilisation bi nga def ah, ah, Kayar mais tamit gis nañ bëri am na fa waaye tamit xeex bi métti na woon na lool ci yow. man combat bu ma mën a jël. Mhm. li ma gars yi di di xaare mooy bëri ba leen may xaare mhm. te dinaa la waxal benn affaire nag li ma lay wax ne wu ci ginnaaw ci kanam la nekk. ndax nga wax loolu. yi sax su ba leen may xaar ndax danaan a bëri bu yàpp bu yàppee mu jeex. Mhm. te xeex balaa dàq pare nëbbu ko. mais wane woo ko. kon xanaa yow yoroo kanam. mais wane woo lu bari parce que gis nañ ne gis nañ sa combat ak Jadli. Hmm. bi nga sooboo yéen ñaar gis nañ ko rankunkaan ngeen joxante yéen ñëpp. ay ay kàddu danoo bëree man ak moom ma gëdd ko bu fekkee si combat bi yaa ngi nit ko ma gëdd ko ba fee ñee fee taxaw. Hmm. te njolle moo ma proloos hmm. ma dagg sama taay ba tolloo ba ñu mu ñëw. combat bi ba ni mu ni mu ëbbi sublee. ba ni mu jeexee bu sama tànk jëmee ginnaaw si yaa ngi fi seetaan leen ba ma dalee bëre làmb ba tey jii dañ ko maa làmb sa arrière te calcul laa ko bëree muy contre tonnerre te ko si ma entraîné ñoo ne ma léetoo loo ko cinq minutes bi saf siy sart loo ko loo ko bëgg def ko ko boobu dañ la koo digal waaw bis léetoo loo ko bi sa siy sart ndax bi ko bëgg def def ko ko mhm. muy contre tonnerre mhm. waaye combat yi si des amul combat bu may arrière un mètre mhm. ñii ngay wax nii ñii ñi ngay wax nii daanu mënuñu maa daan daanu gun ma xale yi ngay wax ni nga ne mënuñu laa nii ñii yi may jox nii mun mënagul ma daan daanaguma parce que xamal tax billaahi wallaahi li may entraîné entraîné wuñ ba ba kan kan kan moo la mën a daan kan nga xam si ne tey jii buñ la ko joxe di di nga di nga yaakaar ne kii mbërëkat la. kenn ku ma ci jox. benn wóoy moo ci làmb. muy kan. muy ku daan ñu ne wóoy. te wóoy gi bu jubee Kayar a jëm <laughs> waa Kayar bul tax waa kayaar nga leen di may bës ti seet yi génn nii xale yi mobilisation bi bari ngay taxaw di wax ñu tiim la micro leeral. xam nga yàlla dafa def benn affaire. Hmm. li ma lay wax ni bu fekkoon gan bu fekkoon gan la ci ñoom. Hmm. ñoom nga mën a wax. Hmm. sa combat bu nekk combat suba la. heure bi dañu réunion fii la ñuy réunion yi. si biir si biir école bi si biir école bi entraînement yi pare. dernière réunion benn kàddu laa leen di wax. indi leen yar. indi leen yar. yar mobilisé leen ngeen yaru. def li nga naan def. bu daan dem maay daan. loolu laa leen di wax. bu xeex di am. maay xeex maay man sama combat maay def lépp. Hmm. barki Seydina Mohamed. Hmm. sama combat wax ji mën naa bëri cool yi bëri siyaati bi rëy lépp lu ne lu ne mën na xew waaye sol bi nekk per maa def lépp. lu war lu waral loolu. lu waral loolu lu waral loolu. li ma sama ko si jàngal loolu la ma jàngal ma xam lu ma jàngal. Hmm. bëre jàngalu ma taxaw di défendre combat de. défendre wu ma bëre laa laa jàng bëre. jënd bi may bëre moom bi taa taa bi defee 3 minutes la ko la ko ko si bi naan gérer temps bi mu jeex. gérer temps mu jeex. non ay ñàkk na lamb ji ay kët si jalli ñoom du ñu taxaw di wax loolu. barki Seydina Mohamed. ki ma toogoon sama sama sama sama kii foo toll di ko dégg. gérer temps mu jeex mu naan ko waaw fekk boobu maa ngi yor force boo xam ne war a bëri moom mu jeex du ma tawoo ci lamb de lamb du ma ci tawoo comme bëri ba temps bi jeex yëkkati. rus naa ko jomm naa ko lébu yi du ma ngeem kayaar gi ma ngeem boo kayaar. Hmm. ànd ak samay rakk rakkaan. Hmm. yaa may dégg ñu si bëree bëri man nag samay course ñu war ñu préparé li ma war a préparé pare yebu ma leen yeb goo xam ne damay dem ba Dakar di tawoo yebu ma leen noonu daan mbaa daanu mbaa ma joxe bakkan bi ñibbisi man loolu laay bëree man lu tax boo jugee boo jugee tey di jëm ndakaaru di bëri ji ñu gis mobilisation bi ngay def waa Kayar gépp toog topp la góor jigéen mag ak ndaw boo xasee jël sa avance amatuñu jàmm xale yi ñu ngi am juróom fukk dërëm di condamné pour mën a waajal sa bis lan moo lan nga def waa Kayar ba tax na ñu jël la teg la ca kaw. man au moins supporter de. Hmm. man loo am. ay xarit laa ay rak ay doomu ndey ay seex man au moins man ñi ma fekk ñëpp ñëpp ñu may supporter ci làmb koo ci fekkal da ngaa yaakaar ni kii maa ngi ñu bokk ndey ak baay moo tax lu luñ bëgg loolu laa leen defal rus naa am combat entraîné ba ñëw ñu xool ma nekkuma ci forme rus naa loolu xam nga tax dañuy am yéene pour man ndam. kon lu ma mën a def mu génne lu ma mën a pour am ndam dama koy def. moom mooy supporter man ay xarit laa am. Mm-hmm. man kaar duñ samay supporter samay xarit la am. Mm-hmm. barke sëñ Saliou te dañ bëgg ba muy ba muy yëg ko bopp. Mm-hmm. te maa raw fuuf. moo tax lamb lu ma ci mën a rayante dama koy rayante. est-ce que mënuñoo mënuñ est-ce que mënuñoo xalaat ñu dem ba ci biir yàlla bu mu am nag ñu dem ba ci biir nga gis succès nga gis beneen teraanga ju bokkul woon bu njëkk. Mm. tax na say xarit ya nga daan àndal ak ña nga nekkaloon bërki dem ak démb nga baleen ndax teraanga ndax lii. parce que boo nee mbër damay faral di ko wax sama parce que boo nee ñu ne mbër dafa amee tuuti rek day war. boo demee Dakar Ndiaye mbër am 10 mbër yi am 18 waar yëpp koo ci gis mi ngi jaay taar mbër am 18 waar. te yow nga am 22. combats koo ci gis mi ngi loo xam ne amu yëru ko. Hmm. man maa ci 22 combats. Hmm. day ramaag dayoo bu ne macha allah bari naa 8 waar te ba boo ma fekkee maa xale yi ñooy toog ñee laay àndal ñee. borom zone ñee nee gis ne ñee laay àndal ñee. Hmm, teel samay samay samay combat léegi sama si teel samay combat la ñee laay àndal dégg ma amul xale. Hmm. amul mag hmm. xeeb mag kenn. man dara mënut a rëy sama bët bii ba may xëcc si si ba xam ne parce que noo mën di mel waa Kayar la man loo mën di am ci làmb waa Kayar la di mel waa Kayar la. yaa parce que ñoo fital. ñoo xalaat nañ nga ab yàlla dimbali la nga àgg fi ñoom Balla Gaye day egg ba nga mën a dimbali ñee nga xam ne ñoom nga doon foowoon doon parce que parce que dañoo fee gis am na ñoo xam ne war nañoo dimbali seen i nit duñ leen dimbali parce que buñ leen joxee avance ñu dem seen poste ut visa di tukki di bàyyi ñañ daan nekkal démb ak bërki dem ak ñi daan toog ci cumbukaay parce que gis nañ gis nañ loolu changement boobu am parce que boo xoolee mobilisation bu toll nii mm. nga te nga nekk doomu Kayaar mm. nga màggee fi defee fi lépp nga doon bëree mm. tey bu ñu nee mbër dañ naan bu bu ko sig sa dabee hmm. da daan bàyyi day day bàyyi ay mag ñoo xam ne dañ ko doon digal lu baax hmm. ay xarit yoo xam ne dañ ko doon digal lu baax hmm. ay xarit yoo xam ne dañ doon dini seen moyen jàppale ko léegi dañuy am xarit yu bees est loolu mun munu munu laa dal man de bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma yàlla naree ma ci làmb ay millions yi bëri am na ñu ko fi waxoon dama lay wax dama lay bu ma yàlla naree ma ay millions yu bëri teranga yu bëree bëree bëri ma war xam ne ba ma débuté maa ñu mën a ànd yàlla yàlla bu ma daati nit yàlla ma yàlla may man yàlla boo ko yàlla may yàlla ma ko yàlla xañ kon mhm. moo daati kenn man dara mënul rëy sama bët mhm. man lamb mu ma ciy ñëw mhm. ay tout tàng laay àndal sama igri boo dee xool poids lourd beneen bi doo nga ciy génne mais nag mais ànd kilifa ànd ak ay kilifa yoo xam ne si ñoom ak sa baay la woon ànd ak ay kilifa yoo xam ne ñoom ak say nijaay la mais baax na si baax na ci baax na si cumbukaay waaye tamit baax na si sa ginnaaw maanaam am naa ay kilifa yu may àndal ci lamb waaye mënoo leen a gis lu tax fan ñuy nekk mënoo leen a gis ñoo yor waaw fi ma ne fa ne mënoon la gis. Mm. waaye assente bi ma seq ak gars yi ay tuutàng fay nekk. gars yi leen lool ci bët. waaw yaa ma dégg ñu xeeb leen lool ci bët. Mm. waaye ñu dansi ci jëf ak ci gis-gis. Mm. dégg nga ma. Mm-hmm. fii dëkku lébu la. ku ne ngeen mën a boo demee bu la daanee bu ñëwee da laa war a noq. lu tax nga wax dëkku lébu la fukki ah. penc ak ñaar la. ci la bokk fii li fi ne ku ne ngeen a laa la wax de. nga dem fee yaafus. soo ñëwee dañ laa war a duma. ndox ñu lay duma am na lépp. fii am na lépp soo ko xamee boo xam boo ko yëgee boo ko yëg am na lépp. maanaam si wàllu mystique. lépp am na ko. na suuf entraînement. am na lekk. am na xol yu baax am na ñu baax. am nay ñaan. am na borom am na borom jom. am na lépp manqué dara. maanaam fi daal ku ñàkk jom dëkkoo ku ñàkk jom dëkkoo fi ragal dëkku boo yeggee taxaw nii. ko jox ko mbaam mu bëri lu raw li jam teel bëri wala li mu di bëri. booy ngi taxaw sotti leen nii koo jox combat nga ni kii mën li mënta ne ndax sama combat bi jàll premier combat bi Kayra dëkkoon gis nga la mbëri ak lam xeex mhm. te boobu premier combat mhm. muy Antoine 2 Antoine 2 ñoo koy nuyu booy ko fa raw fuuf ñu ñu ngi nii taxaw ñu ko dàq bëri fuuf ñu ngi nii taxaw mhm. ku ñàkk fii wala ko yembat nekkul fii nii baña ko ñun boo amee combat leen jëkk a wax moom bu fekkee da ngaa ragal boo bëgg a jël boo àggee fee amuñu ñu fi ñu naan di leen conseillé naa la ëbbi di pir jàppal nii de danaa la loolu lan lay wax xeexal rente daal ñibbi. ñu gis ne danga nga nekk ak Libidor muy sa xarit di sa lépp. Mm-hmm. ngeen bokk benn dëkk. Mm-hmm. waaye bokk benn kayaar. mu doon champion bu mag doon daanaan loo xam ne moom itamit def na lu ne ci làmb dundu na lu leen si làmb sa digganteeg moom mu topp ci yow. Mm-hmm. sa digganteeg moom nga ñëwoon ñu si tuuti leeral ko téléspectateurs yi nga xam ne lay seetaan. Libidor sama diggante ak moom maanaam tey jii li naan ñaan. bu sottee. Hmm, sonal borom moo ci nekk. Hmm, hmm. ba may ànd ak moom di débuté ak moom di ànd ak moom ci àll bi. ñuy tarabu ji làmb. fu dañu bëri ji dinaa bëri ba bëri ji suur tabaski fu dañu dugg fu àll bi fu dañu bëri foo yaakaar dañ fo dañu bëri ji. am na làmb joo xamante ne man ak moom kese ñu ànd cundu benn man benn xaañ-xaañ la ma am ci bopp ke laa ko am. te làmb la ko jox. booru booru booru booru booru booru booru fe ngi gis la doon xeexe la doon xeexe ay ay arpente bis. kenn xamul ñaata nit la moom ki mu njëkk a dóor da kaa dóomu mu daanu man ki mu njëkk da kaa dóomu kaaw. tey waaye bi may xaañ yëgu ma ko abise daw ba romb ñu rek wàcc rek xaañ ñu continuer yaa may dégg te boobu maa ngi ci ñu ànd. Mm-hmm. boobu laa dem ba faju foofu ba wér. Mm-hmm. di ba di di bëreeg naar sawaat di daan boobu laa daan naar sawaat naar sawaat naar sawaat benn. Mm-hmm. boobu laa ko daan biir ndar commandement. sa déwénte moom see daan naan suxaas mbapat moom Libidor moom Libidor waaw te jamono yooyu su may bëree poids lourd hmm. moom moom may bëree lesse mbaa mu bëree ma saako ceeb yàlla dafa def ñuy dem ci làmb hmm. muy may bëree lesse bi may daan Siteu Bambey moom moom bëree lesse su ma bëree na huit combat final ak final muy neuf hmm. moom bëri na huit combat ak final muy neuf te moom mu ngi si lesse boobu laa daan Siteu da day final Bambey Siteu bii nii tey yaa may dégg lu matul une minute bu bu bu bi bu Bambey la nii bu Siteu Siteu bu jàmm waaw boobu laa koy daan lu matul une minute. kon yow daan nga Siteu bu jàmm gën. Siteu bi ma koy daan Bambey. Hmm. matul une minute combat matul une minute. daan nga xale mu mën a bëri. yaa may dégg booy bawal bii tënk yi bi ma daan bi ma koy daan ngaay. matul boobu xanaa gone la. ba ma ma Siteu bi bi bi ma bëree moom maa moom dara ci la bëree Mame Balla man boobu bëree gu ma ndax boobu fi nekk moo roqe keet la muy bëre comprendre nga ñun làmb waxoon dëgg dépassé fii mais lamb moo waxul. làmb moo waxul dëgg. lu tax nga ne làmb waxul dëgg. làmb waxul dëgg mooy te làmb moo ngi dox fi mu a jaar moo ngi fay jaar. barki Seydina Mohamed làmb bu jaaroon fi war a jaar man heure bi maa mais mais mais da nga ñemewul ñoom saakees boo ñemewoon ñoom saakees instant bi yéen a ngi daje. billaahi billaahi wallaahi talaahi man boo fi nekkee di wax ay ragal yooyu damay sànni micro bi léegi émission bi yam sa boo sànni mi ko ñeme woo sànni sama micro ndax la nga sans caisse. xam nga lu tax saare boo indi booy ngaay mu daan ko one minute boo indi booy mu daan ko one minute dóor ku mu jëbul ñoom ma fàq ko toog ci booy bi one minute mu ñu mbéy si ñoom mu yëpp ko top 5 te combat moom mooy gis ñoo ko contact parce que combat bi yeex tàkk. kon sans caisse. jëm ci bi ndaanaan la de. man amul lu may ragal ci loolu. lamb ikri bëriwu ko xam lu may bëri. Hmm. adversaire ak adversaire ñu bëri làmb ikri bëriwu làmb de mhm. man ikri Balla Gaye ay ikri yooyu li yëngalu xam nga ma yëngal muy man ak yow ñoo jàkkaarloo ci digg yóbbu bi day leer ngay rakk Balla Gaye indi Mbaye Gaye Junior teewul tamit faalewu ma la boobu ne pir saakas bëri siwul yow yaay bëri ak man mhm. baraja ba may bëri ak moom Fass waa Fass yëpp a ñëw mhm. boobu pir waa Fass yëpp si bindi ma humilier ko daan man ragaluma loolu Dakar ikri ikri ba fa dugul te boobu ma corrigé la combat yaag sidi yaa ngi si seetaan leen dama lay corrigé li nga man def li ma mën dem ñibbi te boo dexee ay ay tutaan lay àndal xoolal ñuy àndal écrit baa ngi nii lu mën di am combat lu mën di garaaw garaaw garaaw ci ñi la koy préparé lu mën di garaaw garaaw ak lu mu réeree ci ñi la koy préparé bu jeexee pare nañ ci te bu ñëwee nga ne léegi mënta ne suñu coach yaa ngi nii ay Baye Marital ay Baye ay Baye Sarr ñooy suñu coach ma ñu taxaw foofu sa digganteeg doo ngeen mu nekk sa ginnaaw doon xale nekk sa ginnaaw topp ci yow nga jiitu mu topp ci yow mm, seen diggante yéen ñaar mbaa yéen a ngi am relation boo xam si nii fexe seytaane bañ a dugg seen diggante ndax ñaari sax xam nga libidoor moom yàlla libidoor nañ ko woo indi leen ma libidoor libidoor libidoor yàlla def mm-hmm. xam nga aw moom lu may wax ci ci ci libidoor naan ay léegi suñu suñu diggante mm-hmm. comme suñu diggante suñu diggante nii du ci wax mm-hmm. xam nga dama ci wax xam nga tax coow li bari na nga tax xam nga tax ci wax. Hmm. sama rakk la. yaa hmm. la. Hmm. te sama sama rakk lay ma si doon mënu mënu maa mag. ci àdduna mënu maa mag. te àdduna mënut a yàgg yàgg yàgg ba mu bëre. ñoo bokk dëkk bi. tar bi ma doon na ma jiit ma jiit ko ci làmb. ndax yaa may dégg te nit. ñi mu jógee fii ñu si mën naan ma Libidor lii laa muy ma ko yàlla bind te boo ma ko waxee hmm. boo ma ko waxee ba tey boo ma ko waxee laa nii ma boo ma ko waxee nii ma Libidor am na laa hmm. dama koy woo surtout surtout surtout surtout nit nit ak nit mbër ak mbër ngeen dëkk benn koñ nekk ñaar ñoo xam ne ay référence nga ay doom dëkk ba yéen loolu utul ne ne kayaar gi ngeen koy ngeen koy dindi war ngeen a fexe yéen ñaar ngeen ay champion yu mag boo leen bëggee seen rakk yi ëllëg ñu topp seen i tànk hmm. war ngeen a war ngeen seen nopp yi wan ngeen seen bañ a dëkkal ne ko yaa ma ne ma ne la wala diw nee na naa nga. Baye Fallou hmm. li ma ànd ak kii ànduma ko mbër. di ko wax de kii li ma ànd ak kii ànduma ko mbër kii bu bu ma toogoon nii muy bëre Tambacounda ma tege si lan télé soo bi ne bu taxaw di léegi ma wax la li li mu bëgg def. tëddee nga wax bi. nga wax li mu bëgg a def ma wax li mu bëgg a def. allahu akbar kii damaa tari boobu ci làmb barki yonente yàlla Muhammadu ànd ma ci làmb di bëri poussière leste ba bëree luur ba mbokk benn pëkkatu wu bëri bëri est bi man sama ñaam wàcc na yaayam di dund ma toog mu toog nii yaayam dénk ma ko. Mhm. amul dawul lu mat kees mu gën àdduna. Mhm. kon man bu ma ko bàyyee gorewu ma. Mhm. lu ma man defet ma dégg ko man mënu ma ko bàyyi ndax wax jooju wax jooju noonu. te bi di ànd di maam di rente ci làmb. ku ñëwoon dinañ ma gën teel du nga ko gëm. da nga ko da nga wax ma ak kon nit mënut a wax ci sama diggante moom loo xam ne man dama ko wax xaa moom. ndax moom xale la. waaye man du ma dugg ndax soo waxee ci moom man dinaa ko woo ñu ne ko nekk nangam ak nangam. da dama ko dépassé. détail boobu dama ko dépassé. jërëjëf jërëjëf tegal foofu sa baaraam xam naa ne bu ma la teewee si temps bi tuuti sa xol dina tooy libidoor nuyu nañu la. ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. Hmm, nuyul mbokk yi lay seetaan ak émission Fakk di wax seetaan rek jëm hmm. rek. bisimilah rahmaani rahim. Hmm. ginnaaw bi sant yàlla jur si yàlla bi sant suñu ñaari waajur bu baax. di rawatina di sant nag ñi fi teew ñëpp. aussi yéen di leen sant. si li ngeen def. parce que baa bàyyi nga si te ñëw fii Kayar. yaa ngi kolo dañ ci kontante bu baax a baax a baax a baax a baax mm, mm, di leen bëggee nag di leen ziar di mm, gannaaw bu ñu la nuyoo nga dégg kaddu jam wax sa diggante ak mm-hmm. waaye dégg nga kaddu yi wax ne sa wayjur bu jigéen moo ko jëloon dénk ko mm-hmm. Mm-hmm. yëkkati la teglu ci ay loxoom matuñu matul ay fan sunu borom mi dara teewul jël ko moom tey naka ngay dundee ak sa ji biir Kayaar en tant boo xoolee dund gi ñuy dund tamit dund rafet la quoi xëy na nit ñi ñoo xamul te foog naa ni moom lu bari def na ko ci man bu ci deful lépp tamit doole ji def na ko si. Mhm. ndax mën naa ni boo xoolee ñun ñun doorandool di bëre ñëpp kenn nekkatul fi ñii nii du suñu ñii ñëpp. ñii bi bi ne bopp. ñii boobu ay xale lan boobu xale yi fekk ay xale lan waaw. man bi may dem di bëre. Mhm. bu ñuy contact daanaka mot ay trente personnes. Mhm. trente personnes ba doon xool dandaa daa moom rek. am moment moom rek laa si doon bëree muy métti aussi mu may daan aussi ñuy bëree muy métti di contact yaa ngi dégg bu ñuy ànd di génn mu am si man confiance nag ah bu ñuy génn damay woo ñu dem bëri ji ah bu ñu bëri tam yàlla day dogal rek lu ñu yóotu dañ koy am indi ko si dëkk bi loolu mu def ko ba jour bi nga xamante ni maanaam dama am combat moom mooy boobu dem ma sax sëriñ sama yaay moom ma dem si ay sëriñ moo yëkkati ay bagaasam ay yéreem yëpp jox ma waa ay cubukaayam yëpp jox ma ma dem bëri ci. moom moom jam moom jam moo def loolu waaw. loolu mooy sama premier combat. Mm-hmm. ginnaaw tamit sama yaay doon dem si papaam parce que képp koo xamante ni rek da ngay dund si làmb rek sama yaay da dox si si yow ñëw sama doom quoi. moom tamit tamit xam nga mu nekk nit koo xamante ni au dernièrement ba ba mu jàppee ba tey bàyyiwul waane cëru mag boobu ma jox cëru rakk boobu man tamit man du ma moom xam na ko bu baax parce que boo xoolee li tax ñu mën a ànd boobu léegi mm. amul kenn ko xam mën naa wax si benn sikki boo xamante ne rek gis nga may dépassé benn mag boo xamante ne ñoo demaarandoo ci bëre. wante cër bi ak lépp référence bi ak bëgg bi yëpp mu ngi fi cër boobu moom laa ko jox ba buy bëree yàlla xam na ne lépp lu man ak lu mu nit dama koy def yaa ngi dégg parce que li wax loolu lépp si moom la ne moom tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. seen ànd gis ngeen tey Leral TV seet si ko tey. waaw di si émission bu mag boobu fàqat seet si ko. te bu seet see sa mag dafa mel ne yow la seet. lan ngay wax émission bu mag boobu fàqat. waaw Leral TV waaw li ma li ma wax rek parce seet na ndaanaan. seet na seet na koo xamante ni tamit ah toj na làmb. boo déggee man toj na làmb bëri na fu ne. jam fu ne bëri na fa daan na champion bu ne. kon tey boo leen jugee ñëw fi ndaanaan ngeen seet. seet si ngeen tamit Kayar. ndax boo xoolee couleur Kayar défendre. te ñun ñii di ñun ñii nekk moom. Mm. xam nga ñun xam nan li mu doon. xëy na nag ñi si kaar mën na leen umpale waaye amul ku mënta daan nag amul ku mënta daan. te tey ji boo ko doon jox tey ji si làmb maa ngi ñëw dogguma la tey ji boo ko doon jox adversaire kan nga koy jox si jamono ji ñu toll. parce que xam naa ne fu mu nii euh, sama doon bi bëgg na mu tooy. waaw ñi ma koy ñi nga xamante ñoom laa ko jox am na ñaar ñoo xam ne dinaa ko cité maam xaw ba nag dina bëri ak ñoom xam nu bëri ak ñoom. Mm. muy Yékini Senior ak Ama Neex. waaye dugal nga dugal nga dugal nga ko fu metti de yaa ngi koy dugal fu metti de. waaw non xam nga xam nga àdduna garab si kaw lay fekkante te foog naa ni euh, soo tërbiwoo làmb ñoom ama ne ak ñoom yëgëri si ay pororon rek moom itam poro te poro du ragal moo ko moroom poro yaa ngi dégg ñoom feem bu am rek. pour ma daan sa waay sa am na lu leen dugg pour ma leen daan. billaahi wallaahi wa taalaahi du wax wi nii. ah li ma wax bu dul dëgg bu ma dee yàlla am safara ñooñu nga xam ne jàmm moo ndax a bëri. jërëjëf wallaahi azim moo ndax a bëri foofu. jërëjëf waaw jërëjëf Libidor ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di la siyaar euh, si ñëwal Kets nuyu nañu la. mu lay bi naka la. micro teel micro bi. Kets nuyu nañu la. mu lay ziar bu baax. tur bi naka la. Baye Madi baay Baye ñoo ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. tey dañoo seet si sa poulain. Diam Terry di doomu Kayar. ngay doomi Kayar. naka la liggéey bi di demee si biir école bi. si biir école bi. école bi moom gis nga macha allah gis nga ni mu rëy te am naa yaakaar ci ñoom bu baax parce que ñu neex a àndal lañu. ni mm-hmm. ngeen gis nii ñoom ñoo ñu ëpp doole fuuf. Mm-hmm. mais luñ leen wax ñu def ko luñ leen tere ñu bàyyi ko te bala ñoo def wax ñu. Mm-hmm. du sànq bi nga ñëwee du fang fële nga ma fekk. yàlla xam na ne dina bu dara amee dina teg la ñetti fan yoo xamante ne dina yabal ci man ndaw ñëw ci man yabal ku nekk ci man. loolu rek ab cër la. ñaareel ba fii nii moom mi bi may takk bu di bëre moom xale la. mais dañoo nekkoon ñoo comme lim la wax sànq rek moom ay ay magam ak i rakkam ak xaritam rek lay àndal amul supporter mm-hmm. yàlla def ñu dem ba ñoom tey ñuy bëri ñu ànd ak ñoom mm-hmm. ñu jël ñu nag cër boobu ñu moomoon ñu delloo ñu ko parce que tey mënoon dem jël keneen muy nekk seen boor mais cër boobu lañ ñu delloo mm-hmm. mais ñoom ñoom ñaari champion yi nga xam ne yàlla def nañu nekk am naa ci ñoom yaakaar bu baax que xam nga la moo tax mbër bu amee am fit day neex a ñaanal te gëm naa ne ñoom am nañ entraînement am nañ fit gis nga booy yi ngay gis nii kenn ku ci nekk bu ñu leen ne woon ngoon nangam kenn du ci teg baat te ñoom ñëpp ay champion lañ. kon li ñaan yàlla ñun dañu bëgg Kayar ñu gën a booloo ñëw jàppale xale yi. Mm-hmm, mm-hmm. li ñuy li ñuy xool seen kanam. Mm-hmm. yàlla jàppale leen mu tegu ci seen loxo. parce que mën nañoo doon lu nekk ci làmb. parce que mbër bu nangoo entraînement te Kayar comme lañ dem di wax dara ñàkku fi. fii amul banque. banque ba doo yor loo reere wala dara amul fii. te mbër bu dee am lu mu reere biiram di fees rek amul problème. kon ñu mën nañoo doon lu ne. te it boo gisee tey bi ngay ñëw ñu am fu ñu jaar ak yow loolu da di ndimbal ci ñun parce que dañu gis suñu bopp ci moom tey daan nañ am ay jafe-jafe yoo xamante ne nii tey depuis mu nekkee fii ba léegi amatuñ yooyu jafe-jafe di la wax ne la Libidor ak njamteeri mi am naa yaakaar ci ñoom bu baax parce que xale bu fekkee ne day nekk ak magam ëpp ko doole taru ko taru ko sonal maanaam du ko noggatu hmm. di ko def ko kilifa bu ko digalee mu def bu ko teree mu bàyyi topp ci suñu ginnaaw tey ñoom fi mu toll nii àdduna soxla na leen hmm. mënoon nañu jël seen bopp yóbbu ko ci keneen mais tey amul lu ñuy def ci àdduna te lu ñu ko yëgal tey gis nga suñu lim lay wax sànq suñu tuutiwaay bi ak suñu ñàkk fayda gi saa yu làmb amee ñun ñooy jiitu ñoom ñu topp suñu ginnaaw suñu ñëwee ba ci làmb ñoom ñu sëgg ci làmb ñun ñu toog ci séesi suñu amee combat suñu sëggee mhm. ñoom ñoo ñëpp xam-xam ci bëri dëgg la dañ leen di ba bañ sëgg bëri ñun ñu gis faay bu ñu waay bu ñu bu ñu bu leen attee buñ taxawee ma ne ko mbër combat bi nangam la laaj defal nangam jërëjëf sama conseil foofu lay amee mais bu dee xam-xam moom xam-xam ci bëri parce que làmb léegi la gën avancé bu njëkk mais su sëggee ba siggi man maa ma ko war wax ne que bëreel lii mm-hmm. muy moom di libi door mm-hmm. ak xale yi yëpp yàlla na yàlla defal kenn ku ci nekk champion bi ngay bëgg a doon yàlla def la ko en tout cas am nañ ñu nit ci yow bu baax yéen waa télé bi parce que lii ngeen def yombul mm-hmm. te yéen yéen a ñu mën a siiwal yéen a mën a tax nit ñi tànk àggu fa quoi. kon li ñuy ñaam mooy yàlla na ni yàlla yokk yéen ba ngeen doon télé yu mag. xam nga yàlla defal ñu jàmm defal ko bépp mboolem jullit. jërëjëf jërëjëf ok mbër jaajëf jërëjëf papa ñëwal ñëwal. jërëjëf kët jërëjëf kët sa kàddu yi rafet na lool jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax. père nuyu naa la. maa ngi lay fay waaw tur bi naka la. Assane Sary. Assane Saaña. saari Sary lan nga ci école bi ak lan nga ci jam teer yi. waaw parent d'élève laa ci école bi. Mhm. jam yi di sama doomu nijaay. Mhm. Mhm. waaw lan nga ñu mën a wax tey si jam téeri bi nga xam ne mooy doomu Kayar ñu seet si ko. tey fii ak déplacé tele bi ñëw fii seet si ko si émission boobu fàqat lan nga ñuy wax ci ay kàddu si jam téeri waaw balaa loolu dañ leen di sant yéen di leen gërëm. Mm-hmm. waa leeral TV. Mm-hmm. am mbégte loolu ci yéen nag. Mm-hmm. di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla yokkute. ak wér seen télé bi yokku nekk ay télé télé télé. Ah, li ma mën a wax si jamteer yi bari na. Euh, premièrement nit ku yaru ku dal ku teey ku joxe cër. ku bëgg li muy def. ndax nit la koo xamante ni boo gisee lii rek wax na ko si biir waxam. ni la aw ma ay morom la am. nit ñi kenn moomu leen juste Kayar te nekk na loo xamante ni boo joxul nit ñi cër kenn du la jox cër lépp mooy demee noonu mais dafa joxe cër mhm. Mhm. tey lan mooy jafe-jafe bi ak lan mooy jafe-jafe ru ikiri boo xam si tey ji mën ko wax te boo ko waxee am na ñoo xam ne mën nañ la déglu pour saafara ko waaw jafe rek ikiri bi moom mooy dafa am ñoo xam ne dañ leen war a teg loxo jàppale leen mhm. ñi nga xam ni premièrement ñi nga dëkk kayaar nekk ci Kayar yàlla may leen askom ñoo leen war a gëstu jàppale leen. loolu moom soxla nañ ko lool lool lool ci ñoom. ndax euh, sa doom boo xam ne bu génnee sa dëkk lay représenté. kooku da nga ko war a teg loxo pousse ko mu dem premièrement. loolu moom soxla nañ ko lool lool lool ci Kayar dagee ci monsieur le maire jëm suuf ñëpp nag tout le monde waaw. jërëjëf kàddu gi mujj gi lan la. juróomi juróomi personnes yu mel ni Diallo. Mm, nga ne. Kayar ba woon yu mel ni Diallo. Mm. man de koo bëgg a daan danaa daan. jërëjëf papa kàddu gi mujj gi lan la. waaw xanaa di di leen jaajëfalaat rek. Mhm. di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal moom mi ak libidoor mi euh, jamteeri libidoor comme moom it moom mi toogoon fii xale bu yaru la ku joxe cër aussi ñu ngi leen di ñaan yàlla yàlla def leen roi des arènes. jërëjëf yéen nit ñu ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax jëm cër yi hmm. gannaaw bi ñu dé bi nga déggee kàddu yi. nga xam si ni lu li ko commencé si Libidor ba ci kaw nga dégg kàddu yoo xam ne yu ñuy wax sa diggante ak Kayar ak sa diggante fi làmb toll. waaye tamit dañu si ñëw si benn kàddu si ñaari kàddu yoo xam si ni Libidor wax na ko si dañ ko siy jël muy euh, cibleel na la ki nga xam si moom mooy ama neex ama neex di doomi Lébu Amaneex di doomi Kée di doomi di doomi Tëngéej de xale boo xam ne moom i tamit mën na bëre lool lool lool tey tey est-ce que tey jam cër yi avance Amaneex ak coow li nii bari nii nga nekk fii ñu ñu fëgg la avance amaneex man man dama ne la lépp lu gën a maanaam lu mu gën a métti gën a tar. gën laa arrangé gën xam nga tax. Mhm. lum mu gën a métti li gën a tar. Mhm. daf may gën a arrangé. Mhm. ndax li may entraîné yombul man xaw ma combat xaw ma ñàkk combat nii nii bu bu bu leen nga ñu fekk may entraînement da ngay da entraînement métti barki Seydina Mohamed ama neex moo ko doon yomb ama neex moo ko doon yomb daan ci ma daan ama neex milliardaire nekk ci ginnaaw muy moo gën man milliardaire ma ne sama ginnaaw xam muy kan muy kan muy Diallo <laughs> téer ma ko ni ma solal solal sa gars yi ñoo koy nuyu Diallo bu baax a yaa may dégg mm. tey jii bu ma soxla woon xaalis dem ci moom du tak barki Seydina Mohamed su ma la combattant ma jëlee oto jëlee oto lu la neex. mu fay. mu fay. yaa ma dégg n'est-ce pas loolu mooy làmb. ma xaw ma jamteeri kañ waaye jamteeri bii nii am na jàppale muy jàllo dama bëgg kay jàppale gën a yokku ñu mel ni cinq personnes yu mel jàllo laa wax mm. bu ma ko amoon bu ñu amoon boo ko amoon fii bu ma amoon cinq personnes yu mel ni jàllo si bi fii mm. man saa bopp laa wax ku ma bëgg daan dinaa la daan man xam na lu tax mm. damay tukki di entraînement noo bëgg a toll dinaa ay toll. te entraînement dama ko seral ci dara. man képp ku si bu ma préparé combat man nga yor ma préparé ma combat. soo paree di ma woowaat. ndax jom ak fulla ak fayda. mbokk mbër yi may entraîné lool yi may entraîné lool. ni may bëree ci làmb noonu laay entraîné man sama noonu laay préparé combat. barki Seydina Mohamed. ku si ma yor depuis ba mu débuté tey laaj leen ndax man sama préparé combat ñi ma defal nanga may ne ah déedéet. léegi du ko def. acca rek. nangul nga daal nangu kii. ak ki toogal sànq. Hmm. laa ci làmb. musuma dem ci benn coach di jàng xeex benn boxeur di jàng xeex xeex bi ne ci man don may duma may duma may duma yi ma yor ni hmm. kii moo ko def ci man nañ ko jox kàddu gi mu nuyoo parce que xam naa ne temps bi li ma dese bariwul ñu daal di ñëwaat ci kàddu googu kat su présenté wul tur bi naka la salaamaaleykum wa rahmatulah man la Baye Sarr Dieye ah hmm. Baye Sarr Dieye Kayar maa ngi nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa kaar di nuyu ñi fi toog ñëpp di leen nuyu yéen tamit aussi di leen rafetlu ci lii ngeen def parce que lii day wane ñi làqu daal. Mm-hmm. waaw di nuyu champion ak libidoor mi fi jógee di nuyu waa Kayar gépp daal. di mm-hmm. leen wax ngi ci jàmm bu baax. yaa yor jàmm ci xeex. waaw njamteer yi waaw yàlla def na ni moom yàlla moo ñu boole quoi. Mm-hmm. parce que sama booy la woon maa ko njëkk a mu ngeemu uuf ko maa ko njëkk a préparé mu dem bëri ji arène. njëkk takkal ngeemu. maa ko njëkk a takkal ci mbapat uuf ko nii maa ko njëkk a takkal ngeemu ci arène mu dem bëri ji maa ko njëkk a takkal mu xeex. te yàqu ci dara nag yàqu ci dara parce que dem na ba niveau bi mu tool ci làmb tollootuma ko fi mu dem ba ni ma baal ma teel la te lim ma teel boobu ba léegi maa ngi ciy kontaan bu ko neexoon def ni yeneen mbëri tey yeneen mbëri bu ñu ba tool benn niveau bi dañuy wuti leneen. dañuy wuti leneen. mais tey fu mu toog ni kii moo ma jàngal xeex rek après dan may xoolaat quoi parce que dañ naa kii war la mën a jàngal njëm xeex wala ñu yaakaar ni. ak ak ak dañuy xoolaay tuutiwaay beeg. yow waaw ko neex <laughs> nga. te demeewul noonu wax dëgg fi yàlla dari gor rek moo tax muy wax lool te kereeram joué naa ci lu bari te lépp xam nga lan moo ko waral. moom cër bu ma jox. parce que tey comme li mu la wax nii rek barki démb rek vendredi ma fi ñëwee entrement yàlla seet ne dama yaakaar daa am combat ba heure bii muy ngi entraînement barki démb ma fi ñëwee jóge suñu kër ñëw fi ba fii ba heure bii maa nga fekk moog booy dama yaakaar daa am combat ni mu la ko waxee noonu la koy dund jërëjëf tey moom lim ñun nangul moo tax booy yi nangul ka maanaam mhm. bu ñu bañaloon rek. Mhm. booy yi duñ ko nangul. Mhm. mais danoo nangul moom. moo tax booy yi topp ci ginnaawam. te àdduna maanaam fu fekk mag day topp baay rek rakk dina topp mag. waaw wax dëgg fi yàlla ku baax la lu mu bëgg rek ci àdduna yàlla mën na koo may. jërëjëf parce que du dugg dara lu ñu yëgul ñun. wallaay xam nga tey jii mënoon nanoo xool wala mu xool grand bi baay mari man kii dama daan boot di bëre dem ba mënatuma daan moom ma daan tegal. dem ba mënatuma kaa daan mais àdduna noonu la tey relève bii nii ñu ngi nii tey boo ko fekkee ñoom fii da nga naan ay moroom lan xale bu ndaw mën na kaa yee xale bii mën na kaa yéenal ci place bu dee sama classe gi mën na toog lu yàgg duñ ko gis mais boo ko bëggee gis demal ci xale yi xale yi camiso nga fekk fa te loolu du hasard daal bu fekkoon nit ku rëy du demee noonu. jërëjëf li mu bëgg ci xolam nag moom moo ko xam quoi. yàlla na ko yàlla defal di ñaanal Ikiri Kayar fi ñu bëgg a àgg yàlla na leen fa yàlla àggale bi jaay Nabil Moustapha. jërëjëf li mu door doon rakkam ñëw bootu ci ginnaawam. Hmm. moom tamit doon booy bu neex a boot. Hmm. parce que biiram amul ndëkk. Hmm. bu biiram biiram amoon i ndëkk maanaam kii du ko mën a boot. mais moom dafa ritaxal biiram kii yaatal ginnaawam mu ñëw tegu ci kawam. tey booy yëpp tegu seen kaw. ñu leen di ñaanal jàmm ak salaam ñoom li ñu bëgg ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal mais champion bi li tegal maxaneel ko yi. ñu jox ko mbër yi koy daw. laamu ji moom laamu ji. kan nga xool ne moo koy daw. Sa Thiès. bi kii di daan Boy Ngaay. Ah. bi mu ko daanee pare man maa taxaw publiquement. Ah. ni ko demal nga jël avance mu ni du ko jël. beneen ki jógee écurie nu mu tuddati sax Mbaye Gueye Junior. aussi tamit noonu. kii tey billaahi moo góor a soog waaw moo góor a soog combat la. combat waaw. man mii Gora Sock waaw man mi man. am loo ci bëgg a wan gaay waaw dina am benn promoteur bu ñu waxtaan ak maag Lat Diop dina am promoteur boo xam ne bu ñu waxtaanee ak moom sa diggante Gora Sock euh, làmb jooju dina taxaw parce que xam naa ne làmb jooj bu taxawee. Euh, métti de waaw mais jadi jadi bàyyi ma dugal jadi jadi ah, ndaxte maa xam naa beneen yoon bàyyi ma dugal jadi jadi mi nga xam ne si nii euh, yaaw jaal moo ko jëlee ci làmb ji yoro jëlal ma kii jadi jadi mi nga xam si ne yaawu jaal moo ko jëlee ci làmb ji jadi jadi nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. waaye dama lay laaj bala ñuy dem d'abord. Eh. ñu wax tuuti wala ñu jël suñu temps. non mënuñoo jël suñu temps parce que euh, temps bi ñu ko. moo tax ma ne naa la dugal rek parce que yow. waa kon baax na bala ñuy dem li may jëkk a wax mooy. xool caméra bi ngeen may mi tuuti li may jëkk a wax mooy il faut ma xool parce que li may jëkk a wax mooy Sénégal soutient la jeunesse Kayar. Mhm. ñu ngiy gërëm bu baax a baax ki nga xam ne mooy Berna ñu gën ko xam ci Diallo. si Diallo taxaw li nga xam ne mooy population Kayar taxaw pour jàppale leen ci dooleem ak ci mën-mënam. kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak weer. Mhm. ñu ngi tamit ñaanal ñi nga xam ne ñooy leeral TV. Mm-hmm. ñoom ñi nga xam dañu taxaw jeunesse bi tamit taxaw leen ñëw Kayar tey ànd ak ñoom jàppale ki nga xamante ne kii moom la ñu bëgg waxtaane mooy ñaari mbër yi leen yàlla fay. comme que nee ngeen temps bi dugg da yéen a tax nar a tax ma wax tuuti. Mm. dinaa leen xamal ne rek ngeen xam tuuti rek ci jam teeri bu kayaar loo xam ne lii bay leen ko xel. Mm. dama bëgg ngeen bàyyi xel ci jam teeri bu Kayar bala may ñëw ci li bi door. Mm. xanaa xamul leen ni jam teeri bu Kayar combat bu rek mbetteel lay doon ci waa Kayar parce que dañuy tiit dañuy yaakaar ni mbër mañ koy jox bu bëreek moom mbër moom day daan jam mhm. te toujours jam teer dafay indil waa Kayar li nga xamante ne moom mooy surprise sa te jam mooy mbër mi nga xamante ne bi dafa am li li wolof naan lañ ca buy ub cin bu ne mhm. billahi kenn du ko tàqamtiku ci biir géew ba wante soble buy xëccoo nii nag ci biir cin bu taalaale xetam du mën a neex billahi jëm teeri nee na jëm teeri bu kayaar nee na janax bu ci musu lekkulee bu ko neexee waraan bi jiwaay ku mul boow lu yàqu yow la jëm teer li muy mën daf koo li muy def daf koo xam te daf koo mën ànd ak rakkam ànd ak doom ndeyam muy libi toor lépp lu ñu mosaan def ci làmb xam nañ ko te bëgg nañ te xam nañ la ñuy def léegi li ci des mooy dañu bëgg a ànd ak ñi nga xamante ne ñooy population kayaar ànd ak tamit Bernard Diallo mi ngi tax xam ne dafa fas yéene taxaw pour jàppale ñi nga xamante ne ñooy doomu Kayaar jàppale mbëri jàppale ñoom jamteeri waaye jamteeri moom ak Libidor nee na ñoom tamit ñu ngi taxaw pour jàppale seen ay rakk kon nag yéen ñi nga xam ne da ngeen ñëw tey pour jàppale leen tey ci li nga xamante ne mooy émission bi yàlla fay leen yàlla na yàlla kattanal waaye jamteeri boo ko joxaatee góor a kooku day mel ni muurlu Balla Gaye ma amoon kon làmb day dekkiwaat waaw <laughs> mais sa diggante ak yaawu jaal mi la génnee làmb ji nag yaawu jaal génnuma làmb ji parce que ah, yaawu jaal num la génnee wala eh, déedéet man dama bëri ak Bur Siteu dafa takk laapataake laapataake ba mu bëreeg moom nag laapataake boobu moo ma tiital ma doon daw rek far ma toog. <laughs> jéem yow daggal ma loolu <laughs> yow daggal ma loolu yow daggal ma loolu am foo ko dugal yoro loolu am na foo koy dugal jam ceeri kàddu gi mujj gi Diam Terry waaw kàddu gi mujj gi lan la ndax émission bi jeex na tàggatool nga sant ñi ngay sant. waa sant Serigne Touba rek. Mm. di sant sama yaay booy bu baax a baax. muy mère am ak bu Samb ak sama jabar Fatou Ngom. Mm. ak sama papa. Mm. Alamana Diagne ak sama papa. déglu leen waaye may leen ñu tuuti waay waaw sama yaay Seynabou Samb maa ngi sant bu baax. ak sama jabar Fatou Ngom bu baax a baax di sant waa Kayar gi yëpp waa bi yëpp yëpp yëpp ak waa sama waa écrit bi. Mhm. ak sama waa écrit maa ngi santaat bu baax. Mhm. yaa may dégg. Mhm. di wax sama sama bi yëpp. sama nijaay. ak Ali Diallo bi nga xamante ne soo ba léegi si affaire di këti këti. teel ma uh-huh. maa leen di bëggee bu baax a baax di wax ni ngay jàpp rek. am na wax ne boo ci nekkee moom léegi di waaye bàyyi lépp. ngir li la neex li la ñor. Mm-hmm. te xam naa ne ma ñor naa leen bu baax a baax. Mm-hmm. maa ngi sant képp koo xam yaa ngi bëgg a jamteer yi. Mm-hmm. ak euh, sama sama sama sama yi xam ne ñooy sama bagage ku si mel ni Pape Dabo Khadim Fall. Habib maa ngi bëgg bu baax a baax a baax. Cheikh Seck di bëgg bu baax di bëgg yéen. di santaat Diallo bu wér. Diallo ñu lay sant bu baax a baax a baax. di la wax ñun ñu ngi sa ginnaaw tout le temps parce que mbër solo lu jàppale. muy man di Libidor di Iguirikaar yaa ñu jàppale biir ak biti. ñi ko yëg ak ñi ko yëgut. kon ñu ne sant di la bëgg bu baax di la wax tamit waa Leral TV gi. nga taxaw leen jàppale leen dinaa la boole sama doom day fàllu mooy kii di may entretenir. dinaa la boole ak moom dinaa jox numéro am mbaa ma gis numéro jox ko. mu woo la ngeen déggante. d'accord d'accord ngeen liggéey bu baax. d'accord yow Diallo laay waxal ci loolu. parce que Diallo moom moo moom moo war a émission bi nga xam si ni eh, dinañ xamal ne eh, Diallo moom moo war a nekk suñu sponsor émission bi nga xam ne moom la ñuy def fàq tous les lundis. xam naa ne du ñàkk émission bi suba suba ku ko seetaan si télé bi. ku ko seetaan si télé bu soobee yàlla vingt heures vingt heures ba vingt trois bu soobee yàlla di nga ci gis sa bopp. di nuyu monsieur le bu baax di sant bu bu baax baax. parce que mu ngi jàppale moom it. di ko nuyu bu baax muy gaas. mu ndey cuun bàyyiwuñu kenn. di di nuyu màggat fi ñu yendu su kër gi ñu yendu noonu. Mhm. sama grand yi màggat sawul màggat màggat sama xarit maa koy sant bu baax sama gaane sama doomu ne sama lépp la. jërëjëf maa koy sant bu baax di leen déggee bu baax. jërëjëf di wax daal ku likk mu limul rek. maa ngi jégalu bu wér. di nuyu waa Karbala sama boy waa Daas sama waa koñ kenn boo xam ne ñu lay fréquenté jërëjëf téeméer ma reer 1000 francs man reer lu ma lu ma lu ma soxla ñu defal ma ko jërëjëf ñoom laa maa lay bëggee bu baax muy Karbala di daas rek yàlla koy wàll daal a baax yoro jërëjëf jërëjëf mbokki leeral tv jërëjëf mbokki émission faqat yéen yi nga xam ne yéen a taamu télé bu mag boobu tous les lundis jam cëri lañ seet si woon doomi Kayaar de xale boo xam ne si bu bëree mu neex waaye tubaarkàlla euh, bu xeexee mu neex am na vingt 22 combats am na 22 toog combats 3 défaites benn sans verdict de xale boo xam ne ndaanaan la de xale boo xam ne champion de xale boo xam ne saa su ne moo ngi wane boppam ci ci làmb ji euh, dañoo bëgg nga tàggatoo ak moo français. mot français ko. nga tàggatoo si français. en français. tu vois bu dugal tu vois dugal ah dugal. non yow bëgg nga tàggatoo en français. waaw waaw maa ngi jégalu maa koy jégalu maa ko ñaan. jërëjëf sant ak ngërëm ñeen leen waa Kayar ñoo ngi nuyu population Kayar gépp di ñaan suñu borom def fi jàmm di mm. ñaanal ñëpp jàmm waaye tamit Alphonse suñu chauffeur ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax rayo yoro si cadreur bi yoro si réalisateur bi ñoo ngi lay bëggee bu baax a baax ah, la Diop la Diop suma rak suma xarit maa ngi lay bëggee bu baax a baax jàmm ci yow jàmm si yow mon ami de valeur ñu ngi bëggee ñëpp di fa ñëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen champion jërë ngeen jëf mbokk yi. jaajëf waaw mais waa Kayar ñëw leen gaay